non dama ne moo tax ñu def position bi yëpp quoi moom moo demandé yàlla pare waaw

c'est pas kii

jël naa ko waaw Bismillah léegi

di ban télé la. ah sëriñ bi def premier ministre bëggoon na def tête à tête ak xalifa bi bu bëggoon rek ñu rocceeku ñëw fii ci salle bi njaboot yi ñu ñëpp ñu àndandoo bàyyi ko mu mën a gisante ñoom kon bu ñu paree rek dellu si waat incha allah